asalaamaaleykum dal leen ak jàmm jongante ngoon ci diggante Égypte ak Sénégal wàllu politique ak it yëkkati bi nga xam ne moom la UEMOA yëkkati ci jamono ji daan yi nga xam ne moom lañu tegoon ci ndoddu Mali lii daal moo soxal ëttu yéenekaay yi ñu xëyee ndool dañu koy door wàllu tàggat yaram rawatina match diggante Égypte ak Sénégal bi ñu nar a amal bu juróom-ñaari waxtu jotee ci ngoon ba teg fan fanweeri simili fële ci Caire gaynde yi nag liggéey gu tar moo leen fay xaar bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication du Sud Quotidien mu ñuy xamal ne équipe nationale bi daal dañoo war a def seen kem kàttan ba dóor firawna yu Égypte yi ngir mun a bokk ci coupe du monde ci Qatar muy loo xam ne nag du yomb dara danañu fexe daal ba def fi jéego lee ci Caire ndaje bu njëkk ci diggante Égypte ak Sénégal nag tey jii ci àjjuma ji ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars lay am ci stade international bu Caire ñu toftal ci nag ñaareelu final bi nga xam ne ci stade maître Abdoulaye Wade bu Diamniadio liñ ko fas yéene amal ci ñaax fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars ñu des ci jongante boobule ak waa SAD ñoom it xamle ne daal ngir mun a yegg ci coupe du monde yi faaw gaynde yi dóor firawna yu Égypte yi gaynde yi nag ci loolu dabbaliwaat jéego yi nga xam ne moom la ñu amaloon ci 86 ak 2014 gaynde yi dañoo nar a jàkkaarloog ay firawna yoo xam ne daal fayu rek moo leen ñor fi mu toll nii muy gis-gisu record ñuy xam le ne Ismaïla Famara ak Sadio ñoom daal ñoo taxaw temm ngir jàkkaarloog na yi ñun daal tiituñu benn yoon bul faale sax nag lañ ciy demee bu ñu sukkandikoo ci l'observateur di xam xamle ni faawu Sénégal wéy di am wéy bu rafet ci taarixu football Sud Quotidien moom di jox kàddu gi Aliou Cissé muy xamle ne lu am solo lañ nar a def ci kanam Égypte kiy tàggat firawna yi moom di xamle ne final coupe du monde la ko méngalee di ci teg nag ni du yomb dara ndax ñoom ñooñu le di firawna yi xam nañ looy daj booy jàkkaarloog gaynde yu Sénégal. Les Échos ne Sénégal daal lenn rek moo ko war mooy gagné. ngir firndeel jéego yu am solo yi nga xam ne moom la ñu amaloon ci Coupe d'Afrique des Nations Kalidou Koulibaly di xam le ne du ñu bàyyi rek xel Mohamed Salah waaye attaku Égypte bi yëpp ci jamono joo xam ne nag Aliou Cissé moom mi ngi xamal suñu naataangoo yi ne fi mu toll nii daal tiit daal def na ko lool ñu des ak les échos waxtaane wàllu politique ginnaaw gi Ousmane Sonko xam le ne dootal dem di signé ci kanamu yoon jëmale ci lii ñu teg ci ndoddam di contrôle judiciaire daal mujj na ko asaf sàpp ndax doyen des juges d'instruction nee na loolu du ko teg ci suuf ñi nga xam ne ñoo koy layool ñu ngi soññi Ousmane Sonko daal mu fexe ba weer wu ne mu dem ci kanamu yoon signé li ñu ko fay signé loo li leen ñor nag fi mu toll nii muy fexe daal ba seen client bi di Ousmane sonkoo ñu déglu ko ci mbiram ak Adji Sarr Bougane Gueye Dany bu mouvement gëm sa bopp nag ginnaaw gi mu jugee ci opération bii mu duppee woon déglu waa Dakar day jàll ci beneen duppeeko jokkoo tiiñal ma kii te waa tribune di ñu ko yeggee loolu it soxal l'info di xam le ne Bougane Gueye Dany daal dafa taxaw temm ngir jàmmarloog président Macky Sall ginnaaw bi Macky sàll amalee lii mu duppee jokkoo ak Macky Bougane Gueye di xam le ne Macky Sall daal jëlati na beneen dogal waaye yàgg na di dig jëmale ci ndaw yi te du benn boo xam ne nag respecté na ko ñu des ak président Macky sàll bi nga xam ne tey jii ci ñoo fukki fan ci weeru mars ci atum 2022 lay def fukki at ci boppu réew mi waaye li gën a fës ci fukki atu Macky Sall yi daal mooy kuloo gu tar ci diggante majorité bi ak kuje gi bu ñu sukkandikoo ci vox lii di xamle ne kuje gi daal ñi ngi xamle ne bilangu njiitu réew mi ci boppu réew mi daal du tuus fukki at yoo xam ne daal li ci gën a fës mooy dafa war askan wi ñi nga xam ne ñoo far ak moom nag moom di xam xamle ne njiitu réew mi def na ay jéego yu am solo ngir soppi xar kanam suñu réew ñu des ak ku jégi ak le vrai journal bi le ne xeex bi nga xam ne moom lañ sumb jëmale ci parenage bi daal yaakaarul ne dana antu li ko waral mooy ànd nañ ceeg waa société civile waaye lim ci gën a seetlu daal mooy ñàkk ànd ñu waxtaanee wàllu yoon ak laas di xamle ne juge yi dañoo fas yéene xayma bu baax a baax seen liggéey ñu ciy amal ab dajee fële ci sali fas jël benn téere boo xam ne bépp liggéey boo xam ne juge bi jot na ko def dañ ko fay bind ngir mën a amal xayma ba war ci seen carrière ak it seen taxawaay jëmale ci askan wi ñu des ci wàll yoon ak mbir bu doy war bi nga xam ne ëttu yéenekaay yi ñu ñu koy yeggee muy kenn koo xam ne dafa woote ne moom day faj cancer ba mu jural nag benn pharmacien ñàq ci bakkanam ginnaaw gi nga xam ne joxoon na ko ñetti million waa réew mi quotidien si bu baax a baax ci jamono joo xaru jaare ko ci yeewu seen bopp daal tar na lool suñu réew li koy firndeel mooy kundu saar bi nga xam ne juróom-ñaar fukki at la am te ñu fekk ko ci Kédougou ci benn garab ci jeexital weeru février ak fi ñu toll nii daal fukki doomi aadama ñaq nañ seen bakkan jaarale ko ci yow seen bopp le soleil ak vingt 24 heures li leen soxal mooy waxtaane ñu ARCOP bi nga xam ne moo nar a ay ARMP jëmale ci commande publique yi le soleil dellu si baax a baax ci lan mooy coppite yiñ ci indi Birahim Seck bu forum civil moom mi ngi ne lii yëpp daal ndaxe mbaay la mu xamal ko waa vingt 24 heures ak les échos muy xamle ne tur gi rek la ñu soppi waaye du indi lenn lu yees ci kuréel gi wala jëmale ci wàllu marché public l'enquête ak le mandat li leen soxal mooy waxtaane ñu daan yi nga xam ne moom la ñu tegoon ci noddu Mali te cour de justice bu UEMOA yëkkati ko démb ne daal fi mu toll nii waa Mali xoj bi leen xojoon dafa mel ne yolomal nañ ko bu baax a baax ci jamono joo xam ne nag njiitu réew yi boo ko ci CEDEAO tey jii danañu daje ci Accra ci la ñuy xam na la ñu mu jég décision bi nga xam ne moo bawoo ci cour de bu EMOA ñu jeexale kooku wàllu lomb ak waa sunu lomb bii waxtaanee combat bi nar a am dibéer ak jàmm ci arène national ci diggante Bombardier ak Eumeu Sène ci wàllu kaaraange gi nag Gaston Meng daal dina fi indi luy tolloog junni ci ay policier ñu des ci boobule combat bi nga xam ne Zalba xelam màtti jëm ci wàllu lomb daal dëkk méngaleeg ab final lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm Bonjour. Le match entre l'Égypte et le Sénégal, la politique et la suspension par l'UEMOA de l'embargo contre le Mali, tels sont les sujets développés par la presse du jour. Démarrons par les sports avec Égypte-Sénégal, prévu à 19 h au Caire. Les Lions en mission commando. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication informe que l'équipe nationale doit franchir les éternelles pyramides égyptiennes pour se rapprocher du Qatar 2022. C'est une mission presque herculienne que les Lions du Sénégal vont essayer de surmonter face au pharaon. La manche allée de cette double confrontation est prévue ce vendredi 25 mars au stade international du Caire, suivie d'une deuxième finale le 29 mars au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Il faut franchir l'obstacle du Caire, intime conviction de Stade, le quotidien du sport, avec des lions pour rééditer les coups de 86 et de 2014. Les lions vont faire face à des pharaons revanchards, renseigne record. qui informe qu'il y aura Ismaïla Famara et Sayo pour mettre le feu. We don't care. C'est le titre qui barre la une de l'Observateur. Il faut enlever le manteau de champion d'Afrique et continuer à écrire l'histoire face à l'Égypte à 19h30 GMT. Pour les échos, il faut gagner pour confirmer la belle dynamique de la Cannes. Pour le capitaine Khalidou Koulibaly, on ne va pas seulement se concentrer sur Mohamed Salah, mais plutôt sur toute l'attaque égyptienne. Mes joueurs ont encore faim et moins fait savoir le sélectionneur national Aliou Cissé dans les colonnes de Sud Quotidien. Et pour le coach des Pharaons d'Égypte, c'est une finale de Coupe du Monde. Ce ne sera pas un match facile. Nous avons déjà constaté à quel point c'est difficile de jouer contre le Sénégal. Alors que pour le capitaine Khalidou Koulibaly, il faut tout simplement gérer la pression. Alors que dans les échos, Aliou Cissé déclare j'ai la dalle. Restons avec les échos et parlons politique à présent. Avec sa demande de mainlevée rejetée par le doyen des juges d'instruction, Sonko est victime de son refus d'aller signer au moment où les avocats conseillent aux leaders de PASTEF d'aller signer tous les mois. Le confrère informe par ailleurs que ses conseils se battent pour obtenir son audition au fond dans les plus brefs délais. Après l'opération d'Igloo à Dakar, Bougane Gueye Sa Bopp lance Joko Tribune et l'Info. Avec cette tournée, Joko Tignel Maki, Bougan accule Macky Sall. Selon lui, Macky Sall a pris une initiative, à savoir Djoko ak Macky. Or, il a toujours fait des promesses à la jeunesse, mais il ne les a jamais respectées. Restons avec le président Macky Sall. 25 mars 2012, 25 mars 2022, Macky, 10 ans au pouvoir. querelle opposition majorité c'est le titre qui barre la une de Vox Populi qui donne la parole aux opposants qui peignent en noir le bilan du chef de l'État et l'assimile à dix ans de trahison du peuple alors que les souteneurs du chef de l'État parlent de réalisations exceptionnelles qui ont transformé positivement le Sénégal opposition au parrainage un combat perdu d'avance intime conviction du vrai journal. En direction des élections législatives du 31 juillet prochain, l'opposition et la société civile rejettent en bloc le parrainage, une convergence de vues qui ne se reflète pas dans le combat qui est sans doute voué à l'échec. Et ceci, faute d'unité, relève le vrai journal, au moment où les juges seront désormais notés, informe l'AS relativement à la gestion de la carrière des magistrats. Les magistrats des cours d'appel et des chefs de juridiction de Dakar sont depuis deux jours en conclave à Saly afin d'élaborer un nouveau décret modernisant leur corporation. Ils ont décidé en effet de mettre en place des fiches de renseignement dans lesquelles les magistrats seront notés en fonction de leur tr et de vis-à-vis de leurs collègues et des justiciables. Restons dans les couloirs de la justice avec cette affaire d'exercice illégal de médecine. Le malade du cancer du côlon meurt en pleine thérapie avec son faux médecin après avoir encaissé 3 millions. Le faux oncologue provoque la mort du pharmacien, renseigne Rewmi Quotidien. Alors que Libération informe que la série macabre se poursuit. âgé de 70 ans, a été retrouvé mercredi soir pendu à un arbre à la périphérie de la commune de Kédougou. C'est le dixième cas de suicide par pendaison enregistré depuis fin février 2022, selon Libération. Alors que l'enquête et le mandat s'intéressent aux sanctions économiques contre la junte malienne avec l'étau qui se dessert. La Cour de justice de l'UEMOA a suspendu hier l'embargo contre le Mali et les chefs d'État en sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra vont apprécier la décision de justice. Le Soleil, tout comme 24 heures, s'intéresse à l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, avec ce qui va changer. Alors que pour Birahim Seck du Forum civil, c'est une véritable tromperie institutionnelle, confie-t-il à nos confrères de 24 heures, dont les échos, il parle d'un simple changement de nom. Cela n'apportera aucune avancée à l'institution ou au marché public. Terminons par Sunulombe avec le combat entre Bombardier et Eumeu Sène prévu ce dimanche. Pour ce qui est du volet sécuritaire, Gaston Meng mobilise policiers. Pour le chroniqueur de Lutte Zalba, c'est une finale qui aura lieu ce dimanche. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.